Seex Fallu añ na fa Makka sànni jamra fon doj wa dem Arafat dellu umra dem na Safaa dem Matam dalli fa ka xaw makaama dem na ndàngale fa Seex Fallu ah, jërëjëf aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah alhamdulillah xaqil mubin man kawnuhu liya yabin ala kitaabil mustabin maha jami nihami mbokk yi yéen ñuy topp ci seen télévision ba Fatihul Bichri TV nu am tawfeex bu baax ak mbégte mu yaatoo yaatu fas yéene bokk ak yéen jotaay bu tedd bi nga xamante ni maa ngi ko fas yéene euh, sama ñaari jëwriñ Serigne Cheikh Diop Taïf nekk sama loxol ndeyjoor euh, Serigne Khalib Thioune itam nekk sama loxol càmmoñ ñu fas yéene waxtaane ko tedd waxtaane ko màgg waxtaanee kan sakal bakkiyu lazi al bari on faddalahu ala kasri man hazu maziyat borom jikko yi rafet yi nga xamante ne nii rafetaay bi màgg na egg na foo xamante ne ni kéemaane na waaye nag ñu fas ko yéene seq ci jotaay bu diir diir bu gàtt ndax géej goo géej la boo eggsee da ngay rek bàyyi sa morom mu tànk kon suñu xaatim xam naa ah, bu ñu dalalee ci télévision ba Fatihul Bichri TV waaw wax ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi allazi qaala fi kitaabihi wa anna alfadla bi yadillahi yuti man yasha wallahu sul fadli azim wasalaatu wasalaam ala sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki jullit yi ñu ngi toog fii ci buntu kër Cheikh Mamadou Fadal ci bisub màggalu Kazu Rajab bi jàkkaarloog yéen fii ci Bichri TV mi nga xam ni rajo buy liggéeyal télé la buy liggéeyal islam te ñëpp xam ko ci yaatal lépp luy mbirum diine rawatina fii mu bokk ci kër Cheikh Amadou Bamba. ñu feggoog suñu bokk yi nga xay ki ne ci sama loxo ndijoor mooy Serigne Moustapha Ndiaye moom it ñëpp xam ko mu nekk ci télé bi di ci liggéey ak Serigne Cheikh Diop Taïf Mbale nga xam ni moom itam boroom xam-xam la boo xam ni eh, day yëngu ci diine ji di yëngu ci kër Cheikh Amadou Bamba moom it di ko ñu ràññi jàkkaarloog suñu mbokk moom itam maam Thierno. di ñaan ci barke Cheikh Mouhamadoul Fadal lii ñu nu doyee fii yàlla ko yàlla yombalal ban man ko te lépp nekk njëriñ ñeel mboolem taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah euh, sëriñ Xaadim tabarkalla euh, ci nuyoo bu tedd bu mag bu matale boobu kon xam naa rek ñu jox euh, sunu kilifa sunu xarit sëriñ Cheikh Diop Taïf mu moom itam mu nuyoo ndoog a tàmbali waxtaan wi. alhamdulillahi alladi qad faddala rasuluna muhammadan fa faddala ashkuruhu bi kaw ni ummati nabil Moustapha fawxal umam mbokki jullit yi seetaan télévision Bichri TV ak fu ñu mën a nekk ci àdduna si noo ngi leen di ziyaare te di leen ñaanal ci bis bu tedd bii di Kazu Rajab sunu boroom guddal seeni fan wéral seeni cër nangu seeni jëf te taas ñu ci barke borom bis bii di ziyaare bu baax sëriñ Moustapha Ndiaye ak ñi mu àndal ci liggéey bi di ziyaare itam nag sëriñ Sidi Mokhtar ak mboolem njabootu sëriñ Touba gi yëpp waaye di ziyaare sëriñ Abo Baraka mi nga xamante moo teg jotaay Cheikh Abdoul Fadal waaleykum salaam wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah yaa Cheikh Tafadal kon ñu ngi lay dalal bu baax ci télévision ba Fatimul Bichri TV kon xam naa mbokk yi yéen ñu topp seen télévision ba Fatimul Bichri TV ñu war a waxtaanee nag ah, ñetti tomb ci ku tedd ku mag kook di Cheikh Mouhamadul Fadal. innal fadla yu'ti man yashaa wala uzul fadlul azim nu fa seen i waxtaanee ah, sëñ Xaadim ah, diggante bi nga xamante ne ni rafetoon na lool ndox diggante Cheikh Mouhamadul Fadal. ak ñi mu bokkal Cheikhul Khadim di ay doomi sëriñam ndax moom dafa waxoon ne du taalibe boo xamante ne nii daa bëgg a doonub seex mbaa mu nekk doom ju bëgg a doon bàyyi kon xanaa euh, relation bi bi doxoon digganteem ak euh, njabootu ko Cheikhul Khadim ca Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadul Moutada mu mel ne rek xam naa boo gersoo ci turi kër Cheikhul Khadim Cheikh Mouhamadul Fadali dina mel ne rek nga waxtaane ko dina yomb kon xam naa nga yaatal ci tuuti. jërëjëf Cheikh Moustapha Ndiaye ci laaj bii nga jëkk a laaj. mu jëm ci Cheikh Mamadou Fadal ak ay rakam ak ay magam Cheikh Mamadou Moustapha di doxoon seen diggante waaye ñu delluwaat tuuti rek xam ne ni jotaay bi ñu toog di waxtaan ci Cheikh Mamadou Fadal na ko teg ci ndigalal sëriñ Ahmadou Badawi mi doomu Cheikh Mamadou Fadal mu jëlee ko ci Cheikh Abdoul Fatah Mbacké Cheikh Mamadou Fadal mu jëlee ko ci sëriñ Abo Baraka ak sëriñ Bachirou Fallou ak seen bokk yëpp. nuy waxtaan ci seen ndigal ci Cheikh Mamadou Fadal ak ay bokkam nuyu ziyaara nag ñëpp di leen nuyu bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yàgg leen wéral leen euh, loolu nga laaj Cheikh Moustapha diggante Cheikh Mouhamadul Fadil ak ay bokkam diggante la boo xam ni diggante bu gën a rafet la moo dox seen diggante ndax seeni bokk ni ñu meloon ñoom kenn ku nekk dafa jàppe woon sa moroom ni mooy Cheikh Amadou Bamba ñu jël Cheikh Modou Moustapha teg ko ci seen kanam ñoom ñëpp def ko muy Cheikh Amadou Bamba ci bi ñu noppee gi Cheikh Amadou Bamba te loolu dafa nekk sunna ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni al akbaru minal ixwati bi man mansilati abbi mu ni ñu bokk bàyyi ñu nekk kaca mag moo yor wàccuwaayu bàyyi ñu teel a xam loolu ci xadis boobu nag njaboot Cheikh Bamba gépp dal koy dunde jël Cheikh Mouhamadul Moustapha teg ko ci seen kanam ni ko yaay sunum Cheikh Ahmadou Bamba moom it mu jël leen ni Cheikh Ahmadou Bamba jëlee woon njaboot goo xam ni am nañu baay bu gën a gën a baax ci baay yi noonu la leen yore woon ñoom ñëpp. nga xam ni ginnaawam Cheikh Mouhamadul Fadil mi moo ca mag ndax bu ñu xoolee ci na diim li ko Cheikh Mouhamadou Moustapha magi woon moo nekkoon 6 mois 17 jours loolu mooy gën a siiw waaye xool nga léppam da ko toppante ginnaawam ànd ak moom. ñu bokk ay daara yu bëree bëri yoo xam ne dañ ci doon jàng seen diine dafa jàng lépp lu ñu war a jàng xool nga sax bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Moustapha dem na bay abbu Cheikh Mouhamadul Fadel benn téere boo xam ne mooy xalil ba abbin wu rafet wa nga xam ni moom la ko abbu ci rakk ba ne ko bu fekkee ni abal gi nga may abal téere bi yombul xamal ni man day gërëm naa la te bég naa ci yow. xam ni di àbbu sa sarak ba noppi ni ko soo ma ko joxul xama ni bég naa te gërëm naa mooy wax ni mer doxu fa waaye Cheikh Mamadou Fadel ba mu ko nuyoo nuyoo bu rafet bu mat ba ba noppi da ko ni lii ngay bëgg ci man di ma ko àbb muy téere bi jëlal ma ngoog te bul sonn mukk di ma ko andil du ma la sonal di la ko laaj ni ko yow daal yow Cheikh Moustapha yaay sama mag àbb gi nga may àbb téere bi ba noppi nekk sama kilifa fa anni jazaaka allahu xayra jazaa'i ayaa Moustapha man faaxa nan kasa xadra yàlla na ma la yàlla fayal pay gi gën ci pay yi ndax yow Cheikh Moustapha yaa fi ëpp daraja yaa fi gën a taaru ñaar yi la boole woon seen diggante di wéy ba xool nañu Cheikh Mouhamadou Moustapha Fadil mi fi nekkoon di ko baax jëkk a wutu tërax Mouhamadou Fadal ma ngi ko tuddee sëriñ Modou Moustapha te sëñ Modou Moustapha ci boppam moo ko leewu tudde ko boppam loolu sëñ Modou Bousso ci boppam wax na ko fii ne Cheikh Moustapha miñ ma tudde moo ma leewu tudde ma boppam kon xool nga googu ànd daanañu dem bay weccoo ay mbubb Cheikh Mamadou Fadal jàpp ko bu dëgër waaye Cheikh Moustapha jàpp ko bu dëgër muy kóllëre gu yaatoo yaatu ci diggante ki nga xam ni mooy magam ay way yu bëree bëri jaar seen diggante ci wayu cofeel ba tey kii nuy waxtaanee tey ki ko fi nekkal li suñu aboo Mbakke euh, maam Seynabou Fall mu baax mii nga xam ne moo nekk waajuram ci loxo loxoy Cheikh Moustapha la jaare bu ñëw ci sëñ Fallou tey mu ne fi xalifaam moo ko ci kër ga. kon xool nga loolu bokk na ci Cheikh Moustapha ni mu doon taxawoo ay rakkom boo ci jógee itam nga xool ku mel ni Cheikh Mouhamadoul Amine baara moom Cheikh Amadou Bamba moog Cheikh Moustapha ñoo bokk lépp. waaye noonu la ko daal di tuddee itam Cheikh moom Amadou Lamine Baara mi njëkk a wuutu moom mi topp ci moo Modou mi njëkk a wuutu Cheikh Mamadou Fadel kon gis nga Cheikh Moustapha ki ñu ko tuddee moo njëkk a wuutu Cheikh Moustapha njëkk a wuutu waaye ka ca topp di rakkam Cheikh Mamadou Baara moo topp ci ki njëkk a wuutu muy sëñ fa sëñ Fallou ñaari jitaay yi kooku tam nekk diggante bu rafet diggante bu yaatu boo xam ni turi doom yi bare bëri jaar na seen diggante ñu tuddante ko ay way yu bëri jaar na fa. bu dee euh, Cheikh Mamadou Fadal way na ay way jëmee ko ci Cheikh Mamadou Lamine Baara yu bëree bëri dem na ca waye ba naan li lay darruka min cheikhin awa rutaban xad zanaa adaban naika min adabi mu ni mbaaxug yàlla day man Cheikh Mamadou Fadal maa ngi koy ci cër bi yàlla jox Cheikh Baara Mbacké sëñ Baara Mbacké ba noppi boole cay teggin yoo xam ni foofa ay teggin yam di ko lim ba mujj mu ko laalaa yu jaarika fil miidaani min ahadin fil ilmi wal xilmi aw fi joodi wan nasabi nee na fi gaay yu baax yi rawantee muy xam-xam ak lewetaay ak tabe yoon wow ku fi Serigne Bara Mbacke fekk di la jiitu ak askanu sell way na ko way yu bëree bari sëriñ Bara jël ay way yu bari jëmee ko ci Cheikh Mamadou Fadal dem na ba naan ko anta mislo abika kaasifil kurabi kon moom it way yu bari la way Cheikh Mamadou Fadal boo ñëwee ci Cheikh Mamadou Basir Mbacke ma ca topp jaar na fa Cheikh Mamadou Lamine tudd na Serigne ngi ñu ci xuru Mbacke ñu ko bàyyi xel bu baax moom it ki ko Serigne Fallou tudde tey démb lañ ko doon ñaanal muy Alaji Baara boo ñëwee ci Cheikh Mamadou Basir Mbacke Serigne Touba gis nga ko moom it ki ko Serigne Fallou tuddee mi ngi nii moom it tudd na Serigne Fallou doom. ay way yu bëri jaar seen diggante ñoom ñaar ba Cheikh Mamadou Fall dal nee mbëggeel gi ma bëgg Cheikh Mamadou Bassirou Mbacké man oo ma ci sago waaw duma ci faale kenn loolu diggante la bu yaatu yaatu boo ñëwee ci Cheikh Abdoul Ahad lu bari jaar seen diggante jël na mbubbam solal ko jël na mbaxanaam jox ko nee sama digganteeg borom baraag bi Abdoul Ahad moo fi doxaat waxan na ko ay yoon. ba warloo ko réew mi ni ko yaay borom Touba te borom Touba ñëpp ko war a xam ca la dem ba wër réew mépp bind leetar jox ko ko ni ko dëkk boo dem laajteel diw soo ko laajtee jox ko leetar bi bu ko jàngalee war ñu def ko ci yow Cheikh Abdoulaye Mbacke wër réew mi dëkk bu mu wàcc laajte ana diw ñu ni ko ma ngi nii mu joxe bataaxel ba bu ñu ko jàngee ni ko sëriñ Fall ni kii mooy sëriñ Touba mooy man maay moom lépp lu ngeen may defal defal leen ko mooy borom Touba ba réew képp. ba ci mbuusoo bi gii mu la ko ni ko waaw ndax dem nga mbuusoo bi mun ko déedéet mun ko waay si taalibe Baay rek a fa nekk dem fa mu ne yenn fay fan dikk mun ko waaw koy nii rek la yaay borom Touba borom Touba ñëpp koy xam ak yeneen yu bëree bëri jaar seen diggante kim ko tuddee mi ngi fi. boo ci jógee itam bu dee Cheikh Abdou Khader Mbacke gis nga ko li dox seen diggante Cheikh Mamadou Fadel mi moom la ko tuddee mooy imam ak leneen lu bari mbokk ga ca biir ñu bokk lépp. maam bu Bousso maam Awa Bousso ak cofeel ga boo ci jógee xool nga Cheikh saale li dox seen diggante ni mu meloon ci lu bëree bëri loo xam ni defal na ko seex Cheikh Mamadou Fadal waaye sëriñ Fall defal na ko ko boo ca jógee mën nga ñëw ba ci Cheikh Abdoulaye Mbacke mën nga dem ci sëñ Ibrahima Mbacke mën nga ñëwit ci Cheikh Mourtada Mbacke mii boo ci ñëwit ñëw ci Serigne Souhaïbou xam nga li gën a wér bi fi jógee moom Cheikh Mamadou Fadel ci jamono bi mu génnee àdduna Serigne Souhaïbou Mbacké moo ko jullee Cheikh Mamadou Fadel la ñu waxtaanee waaw ah, Cheikh Moustapha mii xalifa bi jiitu jëkk a wut Cheikh Ahmadou Bamba ba mu génnee àdduna jóge fi Serigne Fallou ko jullee kon xoolal ma bii diggante bu rafet doomi Cheikh Ahmadou Bamba seen ànd mboolem képp koo xam ne am nga mag war ngaa ànd àndin wu rafet ak seen rakk noonu le rakk ju nekk war ngaa topp sa mag ni rakki sëñ Touba yi doom yi meloon ci seen i mag kon sëñ Moustapha buñ ko jëlee noonu la waye nag ñi nekk ay waajuri ndaw ci moom di rakki Cheikh Ahmadou Bamba yi muy maam Thierno Ibrahim Serigne Massamba Euh, maam Cheikh Anta ñëpp mu du Fadal def naa ak ñoom ay wayu mu sàdd ci ñoom. tabarkalla jërëjëf sëñ Xaadim la macha allah ci euh, yaatal bi nga xam yaatal nga ko ci diggante bi nga xamante am na ci Cheikh Mamadou Fadal ak njabootu Cheikhul Xaadim gi nga xamante ni ñu bokk wajur nga yaatal ci lu bari bari xam naa sëriñ Cheikh euh, du ñàkk nga sara ci bu baax tuuti as ab diir ndax sëñ Xaadim leeral na ci loo xamante ne ni daanaka dugg na ci kenn ku nekk relation bi nga xamante ni dox na ko ba tuddee moom tuddante ay doom. ak ay mbind moo xamante ne dox seen diggante ñoom ñoom ñoom ñoom ñi nga xamante ñoo ko seqee di ay njabootu Cheikh Abdou Khadim jërëjëf Ndiaye waaye jërëjëf sëriñ Khadim Thioune ci kàddu yu am solo yi nga xamante ne nii ubbee nga ko jataay bi tàmmu leer nañ ñi waaye may fi may tàmbalee mooy rek ci loolu nga wax Cheikhul Khadim daa am lam leen jàngaloon ñoom dañ ko doon tari ndax daa mas a wax mag ñi ne leen day bu yett amoon ma def yett sëñ tubaa nee na yett amaat defoo yett sëñ tubaa nee na bu yett amaatoon doo def yett mag ñi ne ko mbàkke luy loolu sëriñ bi ne leen bi nga demee bay mag ba nga doonee gone jàngoo nee na ba nga demee bay mag nga rëccu ko lool sax ñàkk a jàng tubaa nee na am doom jàngloo woo ko sëñ bi nee na boo delloon di gone doo jàng nee na itam sama baay bu doon dund lu ma digal ma def lu ma teree ma bàyyi mu metti la lool sëñ Tuubaa ne sa taaw bàyyi ne jonn la muy digleeg la muy tere defoo boobu neen bu sabaa lu mu doo ko def lu mu doo ko bàyyi kon mel na ni fii sëñ Xaadim tàmbalee ñoom loolu leen sëñ Tuubaa jàngaloon bi ko ñetteel sëñ Tuubaa nee na su ma fekkoon jamono yonent bi sallallahu danaa ko gëm danaa ko liggéeyal sëñ bi nee na sama jamono wala fekk sama gis sama mbind gëmoo ma liggéeyal nee na boo ko fekkoon ne doo ko gëm doo ko liggéeyal mag ñi nag foofu la ñu newoon ndax fii ci surra rek sëñ Tuubaa boole na fi sëñ Manoussa sëñ Fallou sëñ Basiru neleen leen yéen ñett ñi ngelaw sax mu dox seen diggante ngir ñu ànd àndin wu rafet fii ko sëñ Xaadim tàmbalee rek doy na sëkk ci liñ ciy waxtaanee nu it diggante mu Moustapha ak sëriñ Fall bu moo ko jëlee sax dana doy sëkk ndax kër sëñ Mbacke Madina gii ñu koy wax kërug bayti gi soxna Boussa mii sëñ Mbacke Madina yoroon nga xam doomi sëñ Fallu mi ngi ci kër gi. wax nañu ne keroog bi ko sëñ fan Fallu muur dane ko sëñ Mbacke Madina moomee nga jëm war koo liggéeyal boo demee bul jàpp ne sëñ Fallu ma jur kee doomi Cheikh Moustapha la waaye dana ko man mii di sabaay de damaa xam ne sëñ Mbacke mu ko bëggoon liggéey sax mu gàntal waaye kon danaa ko liggéeyal kon wayef mënut a weesu loola waaye diggante Cheikh Moustapha ak sëñ Fallou fii ci kër sëñ Mbacke Medina gi sanc bi lañ ko tudde woon ay jamono sëñ Fallou ñëw na fi aw yoon fekk fi sëñ Matsil la ñaaxeen booba moo nekk bëkki néeg bi mu nekkoon ci daaru ñaaxeen gi neloo na ren yàlla na ko yàlla dolli leer sëñ ma sëñ Fallou ne ko yëglul ma sa mag ju baax ji ba sëñ Matsil la nee na ma dem yëglu Cheikh Moustapha ne ko laajal ma ko ba xam kafe ak ataaya mu ci bëgg te dalal ko nee na ma ñëw lal dalal ko nekko ko nee na kafe ak loo ci bëgg neen sëñ Fall ne ma anañu nee na daa xor moon nee ma dem andil ko yëpp nee na mu toog ab diir ne ko xam naa daa mel ne daa jàpp waaye ngi ne yoon kon te ñëwaat waaye nee na bi mu jógee moom sëñ Fallu xool porte-monnaie Cheikh Moustapha bi turki dara yi wekkee ci la jël benn sol nee na ci la jël di jël benn sol nee na bi ñëwee ba tolloog jumaa ji tey mu koy ñaanal nee na booba baraag bee fi nekk nee na mu ne ma mat si la ma Fallu Mbàkke fu lor di jaar ba agsi ci yow kuy sa baay borom baraag bii kuy sa mag borom jib ju baax jii nu jóge man Fallu Galas lor balaa romb ñaari agsi ci man dana wax lu leer kon loolee toppante ak jàppante mënu koo weesu. ni ko sëñ Xaadim waxe mu jël sëñ Modou bu sa Sajang tudde ko sëñ Modou Moustapha waaye Cheikh Moustapha tam jël moom itamit sëñ Fallu daaru islaam dànki way jur sëñ Moustapha mii moom it daal di ko koy tudde moom it xam ne Algérie la newoon xam ne Algérie su ma saan am difficulté ci wàllu interprétation sëñ Fallou moom lañ daan jël ndax xam-xam bu bari ba sëñ Fallou mii la ko sëñ Moussa tudde moom it fay bor ñu ànd ànd dafet wu neex a nekkale wu neex a nettali ba ci Taïf gee ba ko sëñ Moussa sancee Cheikh Abdoul moo fa dem ànd ak sëñ Mbacke Bousso ak sëñ Bassirou ak sëñ Mor Roqee Bousso ba ñëwee seex Moustapha dalal leen daloo leen sëñ Fallou laaj ko turu barab bi Cheikh Moustapha ne ko saa yam ko xoolee de ndar la may nuru waaye doom ji kat yaay baayam tudd ko xoolal àndinu rafet woowu waaye sëñ Fallou ni ko sëñ Xaadim waxee léegi way da koo jekkoon fu mu ko fekkee rek day curiku du jas sa xooli baxaru mu daal di cee def ñaari bayitam yu rafet yu sell yooya ya taifan yaxsha nawaiba dahrihi luz bil xalifati Moustapha fi taifi ma wal aramili wal ufaati jamiin ma bay ramin aw xaayifin mu ne yow mi wër euh, yow mi nga xam ne da ngay ngir bëgg ab làquwaay ab aaruwaay ba mu mucc ci tànk-tànki jamono ak méttiiti jamono sëñ Fall ne ko demal Taïf làqutu ci sëñ Moussa soo ca làqutoo kat da nga tàggoog méttiit yooyee ak tiis yooyee ak tànk-tànk yooyee ndax moom kon mooy aaruwaay xaaraankat yi mooy waay jirim yéeg ñëpp lii may wax ni sëñ Xaadim si la conférence neen mas naa ko net sëñ Mbàkke man wan ko béy de neen sëñ Mbàkke ne ko ñaanu saamam sëñ Fallu gi ci man Mouhamed Mbàkke mii la nangoo ne ko sëñ Tuubaa ba mu sañcee dëkkam bee ñaan yam ca ñaanoon kenn ku ci nekk bu sab xalifa ñëwee euh, tam war a nangoo ci yow yaay tooge jataay ba def lay tax ñaan nga nangu sëñ ma mi ne ko waaye nag ñaanu saamam fàllu koy ku dugg tey moom doo koon gën a soxla sa fajuwut sëñ Mbàkke ne ko la nangoo ne ko lii may def nii ci dëkk bi damaa fee fekk luñ ma fi liggéeyal ñaanu mag ñi ñëw ma ñëw dàmbe ko di ko doxal kon loolee kon rafetaay mënu koo weesu sëñ Mat Si la itam nee na sëñ mënu saa jox na ko bis da ko woo ñëw mu ne ko Mat Si la mu ko Mbàkke mu ne jox ko dërëm ne ko na nga dem mbal soo demee nga xoolal ma koo nga xam ne jëmm ji day rafet gura ga rafet nga wut morso bu rafet nga jënd ca luy tolloo kilo gura ndax boobu ab dërëm xaalis bu yax tàll la moom moo ne ko su soo ko jëndee nga dem dindi ca sama doomi Serigne joojee nga joxal ma ko ko addiyee sëñ Fallou sëñ Matisi nee na ma ñëw nee na ki ma njëkk a yam nee na gura ga rafet na waaye jëmm ja melu na sëñ Modou bëggoon nee na ka ca topp jëmm ja rafet na waaye guro ga mel sëñ Modou bëgg ka ko ñetteel mel ni sëñ Modou bëggoon ak nam ma ko digale woon nee na ma jënd guro ga daal li koy ëmb nee na daal di samp sama xel nee na maa ngi fekk sëñ Fallou ndindi nit ñi waru ko nee na ba ma ko jubee neen dane waaye taxaw leen waaye keekat ca saa sëriñ ba saa mag jëla jóge waay nee na Modou Maxtaan baax ji nee ne ko ma nga fa ma nga lay nuyu moo yónnee mu ne ko bisimilah lu wax nee na ma ne ko moo la jox guro nee na mu daal di koy tekkil boppam nee na jël guro ga di ko séddale ña fa nekk daal di neen daa njëkk a naqu nag dugal ci poosam tàmbale seddale nit ñi ba mu àggal mu jël xollit yaag yëpp ne gasal mi fii am paxawaay sëñ mët si la ma gas mu daal di koy suul la ca desoon daal ne ko lu baax jóge ci ku baax ñëw ci ku baax des ci wàcc dara daal ne ko soo defee ngeen saa mag ju baax ja Mamadou Fadal nee na dana am lim bëgg lim bëgg liggéey sëñ Tuubaa lépp dana ci lu ko wee jort dana mu bëggam ci boromam itam nee na ma day ma ñëw fi sëñ Moussa nee na moom muñ daal ne ana ana sëñ Fall lu mu mu ne ko nee na day da nga am li nga bëgg sëñ Tuubaa te da nga am sa bëgg suñu borom sëñ Musaa ne ko sikkuut de ndax moom de moom lay déglu lay déglu lu mu wax yàlla suñu borom def ko kon loolee àndi rafet la yu neex a nettali Cheikh Moussa bi mu fi toogee ci noonu mu doon séddalee sëñ Basiirum sëñ Tuubaa mu la porte parole am jël sëñ Modou Abi bu maam Thierno teg ko ci wetam lu mu daal ma sa la ci yoon wi ñoom ñaar la ko daan séddale su fekkee daa yónni sëñ Basiiru fi mu jox ko sëñ Modou Abi su dee wax ak nag seexi Daaru Xuddoos yi mu jël sëñ Fallou Sarr doom sëñ Sarr Njaañ jox ko kàddu ga bam na bis sax lenn ci sunu magi kër gi ne ko xam nga nit ku ne fa ngay fa nga toll rek ngay waxee ne ko dañoo bëggoon nga jël sëñ Cheikh ak sëñ Mbacke Madina mii dañoo bëggoon nga jël leen di leen feeñal ndax boo ko defut soo liggéey kenn du leen xam soo fi kon Basiru sëñ Basiru mi rek la ñu xam ak sëñ Modou Abibou Cheikh Moustapha ne leen waaw waaw Cheikh ak sëñ Mbacke Madina mii lay dax ñu xam leen ñoo koy jëfal seen bopp te waajal leen di suñ borom fàggoo na leen te xanaa war nañoo mën a góorgóorlu mooy leen tey nag su ma juumee man Moustapha mii Basiru sama rakk man na maa gàgganti waaye su ma juumee seex seex ak sëriñ mii mënuñu maa gàgganti ca leen sañ Cheikh ne woon na ca la Cheikh Moustapha waxee woon na kilifa gu ne war naa teg ci wetam ku dañu ko reer te amub reer ba mu doy kon muy lu am am solo kon añ rafet bu neex a nettali loolee ca lay ñoom ñaar ba sëñ Modou Boussa man am na ku ma nettali Côte d'Ivoire ba ma fa demee 2011 kooka it damay bañ a tutur woon yàlla yàlla dimbali dana ma maa doon jéem a dox bis ci lu mel ne ab rambaaj diggante si amul Moustapha sëñ Fallou ma ne ko ah yëf yi nga doon doxee rëy na di ku xoromu la nag mu ne fan yee daal damay def saa yi ma ñëwee rek fekk sëñ Modou Bousso di ba sëñ Modou Moustapha sëñ Moustapha Bassir di attaaye mu jël sëñ Axma Tindo di yóbbu ko gànnaar mu jàngi na ma ñëw sëñ Fallou ne ko ah, nuyu ko sëñ Modou Bousso mën nga koo nangu ji mu nee na mu ne ko ci lan nee na ne ko Cheikh Moustapha mee nga ko jox de dafaa nekk di ko bës la nga ca bëgg du la ko ca defal da koy bësloo rek di attaale sëñ Moustapha Bassirou neen sëñ Fall ne ma waaye na ko sàmmi sax na ko sàmmiloo ji ne ko na sax na ko sàmmiloo ji da koo moom ma jox ko ko waaye séentuma ca moom lenn la ca war dana ko def ca moom. nee na ma jóge fa dem sëñ Basiiru nuyu ko ne ko de man ngaa jël ah, mu jàngi bu ëllëgee muy lif seen doom yi nee na sëñ Basiiru ne ko. sëñ Moussa Basiiru moomee day joxuma ko saa mag moom rek ma jox ko ko bala nga wan a xam fa ma ci féete dëgg-dëgg sax am naar day fay jaar day jaar gan day jaar tindoodi googee ba mu fa jaaree Cheikh Moustapha bëggu gàtt te amul njëg yoratul njëg mu jël cab gàtt tey le Moustapha Bassir naar ba yóbbaale ko sëñ Bassir na ko du ci dégg sama kàddu nga xool kon àndi rafet yi ak ñu mag ñi àndoon te neex a nettali sëñ Fallou mii demaat na ànd sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou Khadir daana ko nettali fii bu yëggu rek njëkk muy ne la wax na ko nee na bañ demee waxtu takkusaan saana jot sëñ Manu Saane Cheikh Abdoul Fadal doxal jiite julli gi sëñ Fall ne ko bala ma koo jiite daa am lu ma la ciy sas soo ko mënee ma jiite soo ko mën a du ma jiite sëñ Fall ne ko loo ma ciy sas Cheikh Moustapha ne ko sëñ Fall ne ko Cheikh Moustapha ne ko loo ma ciy sas sëñ Fall ko su ma jiitee julli gi ba noppi képp ku bokk ci julli yàlla sama borom jéggal ko sëñ Fall ne ko soo mënee loolu soo ko mën nag du ma jiite Cheikh Moustapha ne ko maa la ci defal soo jiitee julli gi ñun ñi bokk ci julli gi julli guñ bokkati yàlla sama borom jéggal ñooñu sëñ Abdou Khadir ma ngi ko nett daay yëkkat loxo ne man de fekkee naa julli ko tey maa rafet yooyu neex a nett lu mat di waxtaane la bu baax a baax diggam ak Cheikh Abdou Lahad nii mu ko waxee wax nañ ne ay jamono sax daana ko dawalal di togg ay reer di ko ko andil kon loolu doyoon na ci sëkk Serigne Saliou mi fi jógee bu yàggul nga xam ne sa maas gépp ñun ci lañ tàmbalee xamee doomi sëñ Touba Serigne Saliou mii fi jógee bu yàggul sëñ Fallou gane ji na ko ci dëkk boo nga xamante ne ni keroog wax nañ ne ba mu demee ba jekk moom sëñ Fallou bay bëgg a dem di waxtaan ak mi te wax nañ ne kër gi mu fekk sëñ Saliou benn lalu gattax a fa nekk ak benn kalo pepp kon xabbaan mi ngoog kon boog jërëjëf xabbaan waaye nee na sëñ Fallou dafa muñ na cey maa ñee jamono teg Saliou mii seen nas lalas gattax seen nas kallas te àdduna bépp ci loxoom bii lay mujj kon ñooñu seen andini ak seen nekkin ya dafa rafetoon lool te neexa a nett xam naa dañ koy joxe dagg foofu waaye li ñu fa waaye bañ ñëwaat ñu doole wasalaamaaleykum wa rahmatullah hakaza Serigne Cheikh Diop tabarkalla dafa mel ne fi nga jaar rek fa la sëñ Xaadim jaar menn mbedd ngeen jaar te mu mel ne euh, suñu xaadim kon euh, Cheikh Moul Fadal Mbacke gannaaw bi nga xamante ne soppee na noonu nag euh, doomi sëriñam yi di Cheikhul Khadim am noo noonu mu defante ñoom àgg na nag ci ci boo xoolee ci njabootam da nga fay di gis Ahmadou Badiou yaa ko wax léegi suñu Ahmadou Rafaay nga xam ne da leen tuddee ca gaa yu baax ñi nga xamante ne boo wër seen rek bi mag nga koy fekk kon ak cofeem ci lislaam xanaa daanaka moo ko yóbbee lool ak meloon ci Makka daa dem di dikk ba kenn xam ak ñoom fa yóbbu ñu bëree kenn xam nu mu toll àggan na ci doomam jii di alaaji baara ñu wayal ko way woowu di wax ne alaaji baara doomi gares màkk yoon toll la ko def ndax bëgg bëgg lislaam ak sëñ Fall bàyyi ko ci lu mel noonu euh, loolu ñu euh, jërëjëf sëriñ Moustapha njaay jërëjëf sëriñ Cheikh Diop Taïf euh, waxtaan yi am na solo lool ndax lépp tege tege na ci fa mu war a tege ñu ngi ñaan yàlla guddal fan yi dolli mu mel ni sëriñ Moustapha da laaj Cheikh Mamadou Fadal cofeelam ci islaam loolu nag euh, lu yomba jàngale la ndax lislaam ku amul xam-xam mënu ko sopp mënu ci am cofeel bu ñu xisee wax cofeelam danañu indi li mu amoon ci xeeti xam-xam yi daje woon ci moom yëpp ba noppi nag yëpp mu di ko jëfe bawu ci benn ndax dañ koo jàngal ba mu jeexal xam-xam yëpp boo demee ci alaaji Abdoulaye benn naaru gànnaar la bi mu koy woy mu ngi koy wax mu wax ni ah, fa ilmuhu maa naalahu dayyaaru isa ilmuhu laysa lahu miyaaru mu ni xam-xam bi nekkoon ci Cheikh Mamadou Fadel amul kenn ku ko am ndax xam-xamam amul woon nattuwaay kon li mu xamoon ci islam lépp doon ko jif ba mu mat moom Cheikh Mouhamadul Fadel te bu ñu xisee tudd xam-xam mooy grad yëpp ndax suñu borom day wax ci alxuraan ni yarfa ilaahu lazina amanu minkum wa ootul ilma darajaat loolu mooy lan walazina ootul ilma maa al iman fawqa darajaati lazina ootul iman bi xayri ilmin ñi yàlla jox xam-xam boole ci ngëm ñoo kawee daraja ñi ñu jox ngëm te joxuñu leen xam-xam Cheikh Mamadou Fadel foofu la jaaroon yàlla defal nag mu nekk koo xam ni ci xam-xam boobu ak jaamu yàlla gi ngay laaj dafa bari loo xam ni Cheikh Ahmadou Bamba da koo ñaanoon yàlla ba mu may leen ko ñoom ay njabootam. moo ñoom ñu bokkan ko di ko def muy jaamu yàlla xam-xam bu sel moo tax Cheikh Ahmadou Bamba nee na mun na alaya wa ala awlaadi bil ilmi wal amali wal isaadi yàlla ma xiiwale xam-xam man Sëriñ Tuubaa ak jëfe ko ak ak texe maak samay doom yëpp kon doomi Cheikh Ahmadou Bamba yëpp dañoo jëfe xam-xam loola moo tax texe ga nga xam ni moom la jëfe di may am nañ ko ñoom ñëpp Cheikh Mamadou Fadal ci la nekkoon ajina Makka nga ko waxee 1928 waaye bu ñu doon xool jaamu yàlla sax boo ñëwee ci weeru mu gën a jamono xam ne weeru jaamu yàlla la loolu du hasard ndax julli juróom ci la wàccan mu bokk ak moom waxtu ñu fi ñëw bokk ak ñoom fan ñu fi ñëw kon loola mën na tegtali jaamu yàlla waaye ba mu dikkee ponk yëpp ba wucce woon benn da ko daan def ba loolu moo ko poussé mu dem Makka 1928. lam ci bindal boppam lépp it noo ngeeg moom muy téere ba mu ngàbbal muy kanadi boor moom Cheikh Mamadou Fadel moo ko doon bindal boppam kon Serigne Fallou aman na cofeel ci jaamu yàlla ba xool nga ñoo ñu nga tudd ñëpp muy Ahmad Badawi Ahmadou Rafahi ak ñu bari Chérif Fantamadi ak ñeneen ak ñeneen mu tudda leen tur yoo xam ne ñooñu dañoo nekkoon ay wàll yu nekkoon ay niti islaam maanaam daal lu baax fu mu nekkoon ci jaamu yàlla kenn mësu ci aman Cheikh Mouhamadoul Fadel te ci kanam la nekkoon jamono ñëpp. ndax boo xoolee bi muy aji Makka mi def na ko ca wayam ba mu àggee ziyaareem doon def ñaan yam doon def lépp da koo delloowaat ci Cheikh Bamba ndax gis naa mu bind nii dem na ba ti pabi pavillon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dugg ci biir fab ab dënam dëpp ko ci suuf si nee na foo wàcc naa fa kamil ñaari yoon wala ñetti yoon loola kon xiir la ci jaamu yàlla waaye ne ba ma siggee nag lépp addi borom baraak bi laa ko def Cheikh Bamba loolu moo ko bindal boppam ci aj màkka waaw kon Cheikh Mamadou Fadal rawoon nañu baree bëri ci jaamu yàlla nekk na ci royuwaay boo xam ne kenn mënu koo def ba léegi nii tabeek mbaaxit noonu la ci meloon su ko defee kon xam naa du gudd ay tënk rek ci jaamu yàlla googu ni mu àggalee jumaa ji ndax fekk na Cheikh Moustapha defar jumaa ji ba def ci lu mat cent cinquante-quatre keno ñu ni booba palanteer yi féete kër Cheikh moom sëñ Saliou Mbacke ma ngay génn ca kaw moo tax sëñ Moussa Ka naan Cheikh Amdi Moustapha fondu mag jumaa ji ba mu weesu xaaj mu bàyyi koog alxaaji kon gis nga ko su ko defee kon ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp eh, bëggoon nañ mu gën a yaatu waaye rek nanu bàyyi noonu ba beneen yoon nu gën ko yaatal dañ doon barkeelu ci bis bi ñu ngi ñaan sëñ aboo yàlla na fi yàgg te wér moo ko rakkam yëpp njabootu Cheikh Mamadou Fadel gépp njaboot Serigne Touba gépp di si Cheikh Sidi Moutar salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf euh, yaa Cheikh Khadim euh, macha allah ci euh, ni nga ñu andalee Cheikh Modou Fadal di gëm ak lislaam cofeel gi ci am mu yaatal ko noonu waaye fi nga daan fa laay joxe Serigne Cheikh mu mel ne wax na ne Cheikh Cheikh Modou Fadal ak Cheikh mu Moustapha ànd na du liggéey ci jumaa ji ba mu àgg ci fa mu àgg weesu na ci parenteer yi jëm tiim kër mu mel ne Cheikh Modou Fadal àggale ko. Euh, waxoon ne maay teg xeer bu njëkk bi maay teg xeeru mujj bi te keroog ba muy teg xeeru mujj bi bañ ko am ku koy barawoo sëñ Fall li muy bañ bañ barawoo bi mu yëggee ca esel ba ndaw sa ne wu da ko ne waawaay wu waay jar na ko waaw jar na ko ndax fonk gi fonk islam moo tax mu ne jar na ko ak keroog ñaari rakk yi nga xamante def na ko fii euh, ci aljuma ji nga xamante moo jëkk jërëjëf sëriñ Xaadim ci wax ju am solo jooju nga indiwaat ci sëriñ Fallu ak xam-xam li nga ci wax doy na ci sëkk waaye sëñ Xaadim ñang mee ma dendal da daan wax ne sëñ Fallou daana wax ne xam-xam bi ma am de sax léeg ñu laaj ma ne ma xanaa baatin la ndax man saa lépp dañ koo def baatin mu ne waaye day mu ne ko tey xaw a tuskare ne ñëpp rek say wuréy ca ngoon fajar nga jóg di wax ca kaw nekk waaye nag maag saa mag ju baax ca Cheikh Moustapha de jàng nañ ci cëyeen jolof téere yooyu moom sëñ Tuubaa ñu ko jox yooyu nee na loola moom mën na bañ a ne ci téere xam-xam boobu ndax nee na téere sëñ bi dana leen bis ak sëñ Omar Mbacke way juru sëñ Thierno mi ñoom ñett mu ne leen bu mu bari fi yéen ba ngeen tàyyi bu mu bari it ba ngeen yokkat ci li ma leen ci sant man Ahmadou day mooy téere bu ci nekk na ngeen ne ko gaa yi rek ubbi ko tàmbalee ko fa mu tàmbalee ba mu jeex ngeen ubaat sëñ Tuubaa ne leen gaaw gee xam ak bañ gee fàtte nekkut ci yéen ci Ahmadou mi leen ko sant la ne sëñ Fall ne ko tamit bañ ko ubbee it ba ub ko rek la xam-xam ba ne ci nun waaye bay yi doy na ci rek ci waxtaani xam-xamu sëñ Fall benn naar leen fekk ñu toog sëñ Fall Cheikh Moustapha sëñ Basiru naartul Muhammadul Alawi mu ne hal fiikum maajidun nat bun yamun no àllay bi mbubbin min baxa aw bi turkin aw bi tubay naar bi loolu la laaj sëñ Basiiru moo njëkkatoon lañ wax ne ko law xulta lii bëgg naa lu weex la nilta tubay in lam taqul lii la laa tunaalu tubay Cheikh Abdoul Fadal tontu ñetti bayit ne ko law niltu baxa yaa saahiba jox la ko tey xam la xuruuji walakin huwa bor la ba tey wallahi tallaahi lawla alaqul yamnauni min nazmi shi'rin tara minni bi ahsana way tegaat ci ne ko fa haaka baytaani min duuni axsi tubay inni su ajisin xilli bi jox la ko tey Cheikhul Moustapha tontu ko ne ko yaa shaa'iran mufligan yatwil balaaxata tey ndegam mbubbam mbaxam la maalam tanatu ba tey yaxin zaaka yaa xillu inni kuntu mu'tajiban wal aan fabshir bi annii man danaa la ko may Muhammad al Alawi waxaat ko ne ko baadir ilal wa'di yaa saahi gaawal kon bi jox ma ko tey moo tax mu ne ko baadir ilal wa'di yaa saahi bi jox ma ko tey yaa Moustapha yow noon maalam ba tey kon loolu doy na sëkk kon ci wane seen xam-xam bu dee jaamu yàlla gi seen bu mag wii nu kii ta nga wax ko léegi waaye ci ceyeen jolof fan leen sëñ Tuubaa njëkk a waxee na leen yéen ñaar ñii mook sëñ mënu saa képp ku leen jox boppam te mënu leen koo jaamuloo ji yàlla mën leen koo liggéey ji teel leen a tàggu fii ci àddina lu ko mooy ëllëg da ngeen am mbett mu rëy ndax fa ngeen demee ba xam ne day fa ngeen demee ba bëgg a moom su boobaa dootu leen ko man la leen sëñ Tuubaa waxoon sëñ Tuubaa wax na leen ñii ma leen booleel ñu topp leen na ngeen leen wan yàlla te bu leen wan seen bopp daal ne leen nag li tax nit ñi attan ci man lu ne dama leen a joxoñoon yàlla moo leen wanee yàlla yàlla wan ma leen sëñ Tuubaa ne leen ku wan yàlla ña la topp yàlla wan la ña la topp ku nëbbu yàlla ña la topp nag doo mën a nëbbu yàlla ba noppi yow yàlla far la nëbbu ña la topp sëñ Tuubaa ne ko nag ki nga waroon a xamal yàlla te xamaloo ko ko bis bu xamee yàlla yow bala ak koo mën a doon jumaa ji mook Cheikh Moustapha ñoo ànd ci lépp sëñ Fallu yàgg naa laaj sëñ Tuubaa ab liggéey keroog bi mu ko ko diggalee dane ko yàgg ngaa laaj ab liggéey liggéeya nga ku ñëw na la ca fekk ku dem na la ca ba diir bi Cheikh Moussa liggéey jawriñu carrière ba sëñ Fallou moo ko doon moog sëñ Massamba histoire bi dafa gudd dañ koy dagg waaye am na bis rek Cheikh Moussa dem ca kilomètre fe ca Ndula wax Baye Diagne ne ko bis boobu ngeen di noppal maa ngeen di ko tànnante di ma fekk si Touba ba ñëwee ku ñu wax Baye la wax mu berndeel leen bañ noppee mu ne leen bala ngeen delluwaat ci liggéeyu raay ba na ngeen jaar ci sëñ Fallou ziyaare ko xamal ko ci raay ba la jógee doog a dellu sëñ Ablaye Diop leen ne ko bi ni ñu daje nañoo ak moom mu génn doon dem mu ne ko Cheikh Moustapha ne kon ngeen jaar ci kër ga rek doog a dem waaye bu leen ne mukk te dugg leen ci kër gam ñu daal di génn far fekk ko ci kër sëñ Saliou gi fii mu nekk tey ci xay gi toog sol sol grand bu palmaan bu rafet ñu ñëw nuyu ko bañ ko nuyoo ne ci raay ba la jóg ko li ko Cheikh Moustapha Mbacké sëñ Fallou ne leen jërëjeen jëf tey jii da ngeen am sama cantuk bopp ku jógee ci sama làmmiñ dugg seeni nopp lu ma yàggoon bëgg la man nag sama bëgg mooy bëggu sëñ Modou Moustapha rek ne leen liggéeyu raay boobu da ngeen ci góorgóorlu da ngeen ci am fayuk tey ak fayuk ëllëg waaye nee na ñoom fayuk tey gi moom jaaxaloon na leen ndax booba dara amut waaye nee na bañ jógee sëñ Fall bañ suba rek la tubaab bi tàmbalee fay li ñu jotoon liggéey lépp nga xam ne kon moom doom macha allah kon loolee di rafet lu neex a nettali waaye jumaa ji ba mu ko jiitee 7 juin 1963 sëñ Xaadim ñoom moom a nettali lii te loola yaakaar naa doy na ci sëkk xutba ba wax nañ ca lu ne waaye lam ca wax rek gàtt na te fees na del ne xutba bi day du gudd waaye dana fees del daal ne sunu waa ji xam ne moom la ñëppi wut te nu dong noo kam nañ ko ne daal ne wasalaam sëñ Tuubaa mii ñëppi wut te nu ndong noo kam ko jàpp. ba mu noppee dugg ci biir barab bi wax nañ ne wax bayitam yooyu kamaa xat kuntu toomulee xadiima hunita fi daa nax maa joojee ba bay dee àgg ne ko na ko bëggee woon defal nañ la ko noonu kon nanga nekk fi sa borom di dund sam xel di dal. sëñ Xaadim wax na ne wax nañ ne ba mu duggee ci biir moom mag ñam àndaloon day ba mu sukkee siyaare sëñ Tuubaa ba noppi nee na ko Mbàkke fii la ñu yem yemale la fi sëñ Fallu na loolu sëñ Tuubaa Mbàkke fii la ñu yem yemale la fi saa buñ ko weesoo wees la fi loo jërut amul ëpp nga lii kon wan na ko ne lii ñu def ci yow kat li muy rafet rafet sab yoo sax ëpp na lii ci ñu lu ñu la liggéeyal waaye xam naa noo ngi jégalu ci kàddu yi ndax dañ koy tënk foofu waaye yaakaar naa ne lii sëñ bi doon wax sax ci demu Màkka googu rek sëñ Tuubaa dafa dem ba ñàkk demu Màkkaam nee na sax bàkkaar la ci moom xane ay bayiti boppam la xane tey laa ko doon bind waaye tem boobu dañ leen koy dikk incha allah ndax ni sëñ sëñ Tuubaa bëggee woon yonent bi sama nii ko mag ñi bëggee woon ba jàll ndekete du hasard ndeke mbir la boo xoolee sëñ Tuubaa na mu bëggee woon sama salaam moom nam ko nettali boppam da nga xam ne sax man jaamu sax da ngay ba mujj sax nga tiit waaye noo ngi jéglu ci kàddu yi di ñaanal bu baax sëriñ Abo Baraka mi suñu borom yàggal ko ci gannaaw way juróom yi sëñ Sidi Maxtaar mooy mu yàgg fi la daan ko wér yëpp mu wuuf leen ak ñun di ñaan sëñ Xaadim yi li mu bëgg ci liggéey sëñ Tuubaa bii ci waxtaan yeeg lépp mu a ci ak yéen seen télévision bi fu ngeen bëgg mu àgg fa mu àgg fa ban taxaw taxawaay mu faatiwul Bichri ni ko sëñ Tuubaa bindee ak lam ca seen jumtukaay yi mel noonu ci jumtukaay yi noo ngi ñëpp ci njëkkante bi ak làmmiñ wu taq wi tey di ndaw luy sàkku xam-xam rek bëgg ñaanal nu ba sunu waar itam ñu fas ko yéene bàyyi foofu rek doonoon mu bokk ci commission culturelle wilaya di nap nag waaye ne ku ñu ko xam ne xam-xam bee guddut wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu aleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf euh, Serigne Cheikh Diop tabaarkalla ci noonu nga ko yaatale ci Serigne Fallou ak xam-xam sëriñ Fallou ak julli juróom Serigne Fallou ak dégg mag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci aj euh, jër jëf itam Serigne Khadim tabaarkalla euh, ñu ngi rafetlu bu baax teew bi ñu ngi lay sant bu baax itam ci xat-xat yi nga xamante ni yaa ngi ko toggoo kenn ku ne xam na ne màggal Kazu Rajab yitte yi daa bëri Euh, xat na lool ci yow ci sa kër xat na lool ci yow ci sa ci say gan xat na lool ci yow ci sa mbooloo waaye euh, li gis muy fees ci yow di belli ci sa kanam di réer ci sa dënn mooy bëgg Serigne Touba Xaadimu Rasuul jeex ci moom tàkk wala xam-xam na xam na ko ci yow amul fenn faru teg sa tànk faru Serigne Touba Xaadimu Rasuul kazalika Serigne Cheikh mi nga xamante ne nii defarub euh, jàmbaar ju baax jooju di Serigne Mbacke Mouhamed jàmbaar ju baax jooju di sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma waaye jàmbaar ju baax jooju di Cheikh Mamadou Moustapha bi nga xamante ne sëriñ Moussa Ka dafa waxoon ne xutboo ngi gaa yi la wuusiwul dañu laa xamul géej gaa ngi am xaayaa na ngi mooy wébakaay yaay baxrul xaqiqatu wa sadiqatu wa nada mawjun yafoorun lil wara yaa waay mu mel ne kon jënd waay jooju nag doon moom ci la leen lëmbee def leen ko ci maanaam sóob leen ci loolu mu nekk kon maanaam mbokk yi xam naa noo ngi guddal waaye xër ak bëgg ci ñoom moo tax ñu doon euh, sant cant yi nga xamante nii dañ ko doon jéem rek ndax ku la lebal bar boobu mën ta fay loo ci dawal da nga koy xeeb te lebal ngeen bar mën na koo fay waaye sëriñ bi mën naa fay moom nag mi nga xamante ne mën naa fay yàlla nanu leen fayal boppam di barakati ma faatihul bishri wal amna wal jann barakati cheikhul xadim xadim rasulillah sallallahu alayhi wa mbokk yi kon euh, seen émission la woon euh, fii seen spécial 15 jours a Euh, tawféexal di ñaan suñu borom subhanahu wa taala li mu bëgg ci moom ak moom li bëgg ci barkeb Serigne bi nga xamante mooy rëcc ci dënn yàlla ko may waaye di gërëmaay tamit tamit sunu jëwriñ ji ñu jàkkaarloo gis nga ko du jeex boo ko neexoon toog tegal ay tànkam waaye mu ngi ci caméra bi mu ngi ci montage bi mu ngi ci yitte yi bu ñuy añ mu ngi dafa dàq sax isa gazalika euh, muy Serigne Jaga Seck ñu ngi koy ñaan bëgg Saliou bëgg Serigne Saliou ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm suñu borom bëgg gi mu bëgg Serigne Saliou moom bëgg yàlla bu mu yàlla bu mu réer moom mi nga xamante ne mooy la islaaha daaray na aatay naaka saalih wa anta liman narjuba ni amalu saalih moom la naar ba ne wax naan ko yaa marhaban bi bamba saalihu cheikhu siyoohi bamba ahmadou antal karimu ibnul karimu taqiyun naqiyun huwa saalih béy yooyu ma maa ngi koy jëlee woon ci jotaayu Serigne bu baax di ko gërëm waaye di sant bu baax maam Thierno mi nga xamante ne nag ah, moo dox ah, liggéey bu rafet bi ah, tabarkalla nun ni yéene sa morom loo xamante ne ni euh, jàpp nga ne boo ci jotee rek euh, muy li defaru liggéey bi kon xam naa ne euh, bu ngeen denc di ñu ñaanal ñu ngi koy sant ci ñëpp di ko gërëm ñëpp di ko sàkku ci bokk taalibe yëpp di ñaan Sëriñ Abuubakar yàlla na fi yàggaloo te wér waaye di ñaan Alhaaji Cheikh Sidil Muxtaar moom itam yàlla na fi yàggaloo te wér wasalaamu aleykum wa la foon dem na safa dem na sama dalli fa ka xaw ma kaama dem na langale fa Seex